plage Ngor dimanche mu doon faral di bari nit ñii di sangu ñii di jéem a jéggi ngir dem ca île ba li ñu fa nemmeeku léegi moo di tefes bu yaraax ay gaal yu teer wala ay ndaw yu fooy ci ndox mi fi lu toll juróom fukki dem dikk yi gaal yi doon def tey jii ay ñeent dem dikk lañ fa nemmeeku te loolu sax ay gaalu privé lay doon teg ci duñu yóbbu lu ëpp fukki nit bu ñu sukkandikoo ci kàddu yenn ci kilifa yu fay liggéeyee li ko waral ñuy nee ni mbas mi la wante am ñeneen ñi nga xamante ni ne mbas mi am na njëriñ. ndox mi booy ñu doon ñëwee doon fees fii booy wàññeeku gendarme yi def seen liggéey. fii bërëb yi mu doon mel mooy da daan bëri nit macha allah. waaw ba demoon na ba déborder déborder boo xam ne bi vraiment ëppoon na ëppoon na loxo quoi ëppoon na loxo vraiment. xale yu bëri dañ fi daan yàqu lii gars yi jël dañ ko war a continuer waaw parce que fi nekk na milieu boo xam ne bi làqatukaay la làqatukaay la te vraiment waa dëkk bi ci boppam ñoo war a mobiliser wu ci problème yu mel ni gàllankoor bi mbas mi jur ca Ngor bokk na ci ñi si gën a loru ñi di liggéey ci hôtel yi

ñoom yëg nañu mbas mi bu baax ci seeni gafaga ak norme yi nga xam ne moom la loi bi santaane c'est très difficile pour serrer ko parce que euh, clients yi bëriwul il faut nga respecter distanciation yi respecter port de masque bi surtout parce que masque bi wuroo jël client bu nga xamante ne bi dafa ñëw te indaawul ak masque boo ko bëggee jël à partir de trois personnes amoo droit jël ko vraiment ça a été très difficile bu doon ne euh, pour cent la daal léegi 45 pour cent moom la ñu am comme possibilité de travail. ñu ngi sant nag ñu ngi fortaatu suñu wóoree ba sonn suñu carburant nag mi ngi gën a euh, wàññeeku léegi dañuy ñëw gaare fi noppalu daal dépense daal mu daanaka moom mënuñ ko romb. ñoom ñi amoon yaakaar ci dimbalu nguur gi nee nañu fouraas bu weesoo li leen commune bi di jàppale. ñu daal gisuñu fii dara luñ ñu dimbalee kenn daal moo ñu fi defal ndimbal mooy meeru Ngor bi meeru Ngor nag ñoom moom la ñuy sant moo ñu may place bi ñu ñu nekk di fi toog di fi yendu moo ñu defal baas bi ñun mu ñu sant kooku la ñuy sant. fii ci Ngor moom wax dëgg yàlla lii fi feeñ ci commune bi rek jox nañ ci li ñu war a am wax dëgg yàlla parce que noonu ak ñoom wax dëgg yàlla nekkin rafet la ñu am te lépp lu ñu mas a indi fii bokk nañ kook noonu li ñu ko war a bokkeek noonu. bu doon benn saabu sax daañu ko calculer waale taximaan yi jox leen li ñu war a am. li xosi Île de Ngor moo xuri béréb liggéeykaay yu bëri ñi nga xamante ni mbas mi moo leen tënk tax na ba ñenn ñi daal di tëj seeni këru liggéeykaay ñuy am yaakaar ni rekk mbas mi mu jeex ñu mën a delluwaat ci seeni liggéey.